góor goo xam ne dafa télé bu ñëwee balaa génne dërëmam na wér ba noppi bu ko judduwaalee nag man mënuma ci dara waaw bu ko judduwaale jarum mu fii ñëw mais bu fekkee ne judduwaale ko dafa dab bu ñëwee ma faj ko mu door a fay mu door a fay alalam mais moom ci biir kër gi lay jógale moom loolu moom leer na